sabaru banzazin junnatul sabaru dale na jàmm ki seen rubrique du ju safar ñu koy dooree ak dalal bi nga xam ne sëriñ bi dalal na ko kii di Zaynab Ngom bokk ci concours international récital de Coran bi nga xam ne mën am fële ca Malaisie ginnaaw concours boobule moom Zaynab Ngom moo jël ñaareelu place bi diir fesal wala diplomatie culturelle religieuse bi nga xam ne Touba am na ko ci àddina warngal kàpp a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده wa huwa al-azizul hakim sadaqallahul azim sëriñ bi nee na mat na sëkk nee na alhamdulilahi rabbil alamin nee noo ngi koy delloo gën a sante yàlla bu baax di ko gën a sante sëriñ bi bu baax nee na te nu xam ne sëriñ bi fàggu na lépp nee na nee na te lépp juboo na ceeg yàlla mii suñu borom nu jërëjëf nee na ñu xam ni ndam lii ak moom mii ci fàggu téefu sëriñ bi la. sëriñ bi nee na kon alhamdulilah tubaarkàlla. yàlla na ci sunu borom def fu barkeem. sëñ bi nee na fa tabaarakallaahu. di jërëjëf nangu leen ñaan. sëñ bi nee na sant nañ bu baax a baax. bëri na ay ndongo yoo xam ne ñu ngi jógee Touba dem ci bitim réew di fa am ay raaya looloo tax tey ñu jàngat diplomatie religieuse bi nga xam ne am na ki Touba ban jeexital ak ban taxawaay la am ci yoon wi ñu ànd seeg suñu consultant Ahmed Matar Sylla le mouridisme et la diplomatie, c'est une question qui mérite euh, des réflexions approfondies. Euh, bi mu sosoo yàgg na waaye bu ñu seetloo ci jamono yu mujj yi dañuy gis ni euh, am na lu ñu mën a tuddee la diplomatie mouride. ki ñuy wax Cheikh Mahamadul Mourtada euh, bu Xaadimu Rasool dox ci lu am am solo ci voyage yooyu mu doon def ci Europe ak Amérique. Euh, bari na ci dëkk yoo xam ne su fa daan dem daana fexe ba euh, tase ak autorité yi ku mel ni Cheikh Mamor mu Sëñ Murtada euh, mu nekk di ko feddali jamono bi di ko dox bari na ci réew yi mu dem yoo xam ni maire commune bi wala gouverneur bi moo koy recevoir xam murid yi lool au-delà de cette collaboration disons wala jokkaloo ñuy am fu mel ni Paris Euh, dañuy jox murid le wàcc waay bu am solo la mairie de Paris am na jamono boo xam ne sax proposé woon na euh, le mouridisme wala la daayira euh, de Paris daayira mouride de Paris benn place boo xam ne daf leen ko proposé pour ñu def fa jàkka lool nag su ko suñ ko defee c'est pas anodin tubaab yi bu ñu defee loolu fekk na ñu def seen ay étude def seen ay jàngat def seen ay gëstu ay enquête ba xam ni ñii euh, mën nañoo seq ak ñoom dëkk bi mën nañoo seq ak ñoom liggéey euh, tey jii on parle de complexe Serigne Touba en plein Paris nga door a ñëw nag ci biir réew mi ak les représentations diplomatiques yi fi nekk ak seen doxalante diggante Touba seen doxalante diggante ñoom ak Touba. ci semaine bi ñuy wax nii rek ambas ambassadrices yi ñëwoon tubaa bari na lool mën nañ ci lim bu Espagne bu Portugal. ak yeneen réew yoo xam ne ñëw nañ fa siyaare si sëñ bi waxtaan ak ñoom soo xoolee eh, cérémonie Màggal Touba aussi da ngay gis ni eh, le corps diplomatique dañ fay ñëw loolu nag lu am solo la waaye man jàpp naa ni Touba ni mu waroon a exploiter relation boobu ak ni mu ko waroon a doxalee dafa des euh, je parle d'une manière générale parce que boo xoolee euh, relation Touba ak le monde diplomatique da ngay gis ni amul benn intérêt wala lenn lu mu apporter Touba te jamono bi waroon nañoo mën a fexe ba bépp ba ci ambassadeur euh, des États-Unis déplacé na ñëw Touba siyaare si sëñ Mamoor gis ñëw toog ak sëñ Muntaxa ambassadeur de France ñoom ñëpp dañ koy def réewi arab yi moom on n'en parle pas ñoom ñëpp dañuy def sax ay voyage di ñëw di seet si sëñ bi di gis di kii donc man jàpp naa ne Touba euh, am relation ak le corps diplomatique wala représentation diplomatique ci Sénégal nekkul rek di organiser ay cérémonie officielle di leen ci invité di ñëw di jël ay photo di photo ak ñoom loolu vraiment c'est minable lii nga xam ni mu ëpp solo mooy Touba en tant que dëkk wala bu monde diplomatique bépp respecté ñu am ay jeunes am ay ndaw am ay jàngkat ñu am ab jàngukaay jamono bii ñuy wax ak yéen jàpp naa ni waroon nañoo mën a exploiter relation yi ba nga xam ni dinañ mën a fexe ba am ay échange ci diggante université yi ak université du Touba di waroon nañu mën a fexe ba am ay bourse d'études yoo xam ne dañ koy alloué euh, au khalife général des mourides parce que maa ngi fàttali ni même Cheikh Mourtada le royaume chérifien Maroc am na jamono boo xam ne daf ko dañoo signé ak moom accord convention lañ signé woon entre Al Azhar bu sëñ Mourtada ak université Karawiyin bi nekk Fès nga xam ni année bu jekk bu jot dañ doon may ay bourse Al Azhar ñuy ñëw foofu di jàngi loolu man jàppoon naa ni jàpp naa ni euh, xeeti convention yi ak collaboration yi yooyu bu ñu ko exploité woon war ñoo mën a fexe ba jeunesse bi ñi ci jàng arabe wala ñi ci jàng tubaab wala ñi ci jàng anglais di mën a am ay bourse di mën a dem ci université étrangère yi dafa mën a compter seen jàng bu ñu ñëwee mën a jariñaat réew mi mën ko delloo ci société bi duñ ko yemale rek ci jël ay photo ñëw nañ ci sëñ bi berneel lañ leen yóbbu nañ ci isbu tarxiya loolu vraiment c'est un peu léger dañ ko war a exploiter dans tous les domaines fexe am ak ñoom ay ay collaboration ñoom ay ay ay ay accords am ak ñoom ay convention sur tous les plans sanitaire éducation euh, yëpp rek ngir population de Touba man see gis suñ bopp seen bopp Touba jëm bopp man see gis seen bopp te loolu nag jàpp naa ni ñi nga xam ni ñoo nekk ci organisation wala ñi nga xam ni ñoo nekk ci entourage xalif bi ñoom ñoo war a dox loolu ndax sëriñ bi moom li ko war mi ngi ci li manit ma ngi koy def dafa am loo xam ne nag ña sës ci moom ñoo ko ca war a féete Euh, loolu nag kon c'est une responsabilité de l'entourage di xalif yegg si nañ seen rubrique xuus ci xasida yi ñu ànd seeg Oustaz si la tey nag ñu ñëw ci xasida goo xam ne xasida gu siiw la ñu di ko wax mafatixul bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqiimi sunna noonu la ko sëriñ bi tudde di xasida goo xam ne euh, du xasida gu ndaw maanaam xasida gu rëy la gu ma bu ma bëggee wax loolu mooy gu mag la ci bari euh, waayu kayit yi waaye sëriñ bi delloo ko ca nam doon jullee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam caabi mbégte mu ànd ki xéewal waaye ci julli ak di sëlmal ci yonent bi nga xamante ne moo taxawal sunna noonu la tuddee xaside gi mafatixul bisri wal amni wal janna mafatixul bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqiimi sunna nga xam ne julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daw borom bi subhaanahu wa taala bàkk ko ci turam woowu de arraufu yow yàlla ak say malaayika yéen a ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñi gëm nañ julli ci moom moo tax ma ñëw di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nu muy jullee ak a sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahadu salli wal tusallim sarmada ala allati sammaytahu muhammada naafiu salli wal tusallim sarmada ala alxalili walxabibi ahmada naafiu salli wal tusallim kulla xiin ala nabiyika raisi saalihin ahadu salli wal tusallim fii abad ala rasulika siraaji man abat nii la ko toppee ba xasida gi jeex yegg si nañu fi ñu yëkkatee gataay bi di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm asabdan ya man lahu min